xam ngeen kii kan la noonu Alioune. non c'est eh, non c'est in Dakar. <laughs> in Dakar baby. dafa doon rëcc rek ma koj ko. <laughs> dugal ko ci oto bi ñuy ñuy ñuy déglu ay affaire quoi. mais some special. you you you like you like it. I love it. yeah we do something about it right. yeah.